taal benn max ma ma rabate ko waaye. xoolal xoolal Baye. Ah. ma ko fàttali ñu ngi nële di ñëw. ah fu mu jëm nii. fii la si xam naa ne dafa bëgg si waat. Ah, man xaw ma la kii sonal na ma sama kër. moom est ñëw bu ñëwee heure ndogu day jot nga jox ko benn misiwel mu jël ñaar nga wax ko doo laal mu jël café dëpp day imposé man imposé yi muy imposé moo ma métti. baadoolo la rek yéen baadoolo nit tere ba pare ngay conditionné bu doon ma takk rakam kon bu duggee si kër gi ma def ko mu est-ce que ñu ndey ak ah, baay baay la ñu bokk man de tey parce que gisoo moom dafa seen fi jëw kan moo fi jëw kan moo fi jëw waaye yow kii nit la wala lan la salaamaaleykum aleykum salaam a alhamdulilah barika alhamdulilah eh mën nu mbéy mu toog toogal toogal nii si suuf yow mu toog nga naan man dum da xajal ko fii ci suuf bàyyi bàyyi bàyyi dinaa wax moom dinaa na ngeen def ñoo ngi fi démb na nga def maa ngi fi ça va naka liggéey bi alhamdulilah naka mbaar mi mbaar mi alhamdulilah naka marchandise maa mi ngi dox ah ñu ngi góorgóorlu rek ñu ngi góorgóorlu rek de man nag sama sama sama doom ak yaay mais nag tey tey ni nga doxee baaxul tey ni nga doxee baaxul ndax Fatou nekkul kër gi Kumba nekkul xam kenn nekkul kër gi man rek maa fa nekk xam naa ne bu fekkee ne da ngaa ñëw pour ndogu tey moom foo moytuwul tey gaw ma tey di nga ndog non ñëw ma pour ndog nag waaw dama dama doon romb nii rek ma ne jaar la man lay bi lay indil mixwell bi lay indil te xam naa ku bëgg café kangu nga moo ma jaar ci bitig laa leen dem yow moom tegal la ci nag dem yow moom bër bër ajaab yi nii dem yow ah ah waaw ah, waaw ah. ah kii lan laa ko war a wax. Ah, ma ko kay. lu ah goro boo xamante ni bii nii day lay defal baax. waaye dama di baax. waaye dama ko mer. kii ni mu doone sa goro. non nga sama goro war ma tamit dima defal ci xéwal nak nak nag bu beneen yoone ah sa walu ñew ci jéem a yaa ko gëm naa ko woon bu doon ay ndax sax neex na gëm na ko waaye du daaw rek nga égal kër gi ndox mama yi di may dox rek bu benen yone dina ñew ah waxal mako lolu kay wa wa jaar bu benen yone sax limay indi moy ëpp li dana ko dégg waaw bu beneen sax ko fay sax dina la ko indi ah barke ba la jërëjëf taxal taxal tuuti rek taxal yow yaay démb waaw waaw barke yaramam yàlla gis nga yaram yi baaxoo guddi baaxoo bëccëg xaaraan kat bu ngan nga nee na sax doomaraam ah barki céeramam yàlla moo ko wax nee na bu mag nga yow na yàlla moo ko wax wóor na yàlla moo ko. subaka la subaka Fatimata bintu yaa Rasulullaay. arrêté lii arrêté lii daal a wax bu ñu waxee xoolal ñii nga jaxase xoolal ñii nga jaxase. déedéet man non non non xoolal ça suffit. déedéet bi ma ñëwee bi ma mujjee ñëw sa kër. doon nga fa def jëf ma yaakaar ne loolu jeex na ci li mu wax ni yaa ko wax bu ko waxul woon tey du tey boo ko waxul woon moom du ko wax. yow li nga nekk maa la si bàyyi quoi. yow da nga Faatlaay sax laa si seet. ah moo si seetul woon Faatlaay li la la nii. da ngaa yabaate quoi sëñ a Demba nag lii du jarul lii. ça suffit. kii waxul dëgg day wax. xoolal mais maa la xoolal yow la a ngi nii. Ah. café bii nii. Ah. yow yaay borom ak meew mixwel bii nii yëpp jëlal. yow mérité woo ko yow. ay waay. may na ma ko nijaay. teg na rek nijaay am. xoolal xoolal am fi tàngoor bi ci mbuus mi waay. amoo amoo mixwel. Eh, amoo mixwel. ko woon a wax yow. nijaay am nañu indi fii dala ko may. waaw may na nañ ko teg fii ba ngoon. amoo mixwel yi. saw waroo woon a sosal kii waroo ko woon a wax dara. bàyyi bàyyi yow lii nga may sa doxali. saw. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,